Euh, jërëjëf may euh, Maymouna euh, damay fàttali rek ni boo jiitee lu mel ni ministère du commerce da ngay am ay mission yu bari waaye rawatina ñett ma fàttali ko rek mooy bu ci njëkk muy li ñu naan approvisionnement correct du marché ndax nag ministre du commerce fu ñu ko gën a soxlaa mooy fexe ba consommateur lépp lu mu soxla rek ci marché sénégalais bu demee mën ko faa fekk. Euh, deuxième mission moom mooy qualité produit yi fexe ba produit yi mu nekk ay produits de qualité waaye ñetteel mission bi nekk ci wàllum prix boo xoolee euh, première mission bi moom mooy euh, approvisionnement correct du marché tey li ñu jànkoonteel moom mooy dafa am ay dysfonctionnement ci li ñu naan approvisionnement correct du marché ndax produit bi nekkul présent trop ci ci marché bi te économie euh, waxoon naa ko dama koy waxaat c'est la loi de l'offre et de la demande bés bu produit wàññ euh, manqué ci marché bi prix day yokk waaye bés bu produit ëppee ci marché bi prix bi day day daanu donc lii li nga xamante ne moom mooy le juste milieu mooy bu ñu amee équilibre ci la ñuy am ay prix yoo xamante ne ñëpp mën nañ cee gis seen bopp kon tey gouvernement bi lu muy jànkonteel problème approvisionnement marché la ndax suñu production locale jeex na euh, li li li li leneen li ci li ñuy jël pour approvisionner marché bi moom mooy importation bi importation bi tamit dëkk bu ci nekk ak ay réalité am euh, ku mel ni Maroc euh, suspendroon na exportation oignon bi ñu xool ci yeneen dëkk yi aussi mais prix bi dafa yokk donc avec le contexte aussi économique mondial bi nga xam dafa y a beaucoup de difficultés mais naturellement Sénégal dañ koy yëg